素のもう肉が求めらたらやなとそういう内面で日本本いははうでにこに a n t a mga n k a l a i k o u s suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax di sant ustaz di naan suñu borom yokk ay yaram te yaatal ko di naan liggéey suñu borom subhanahu wa taala di naan di ñeene liggéey ñeene sama sama ñeene ko liggéey sëriñ Tuubaa suñu borom defal ko ko ñu wax di rafetlu seetante di fi jaar yëpp rek di ci indi leen la li ñuy wax zikrullah ndax zikru laay day lu am solo waaw ndax li ko mën a jox suñu borom du dara du zikru laay man saa yu bàyyi zikru laay rek maanaam day daan waaw ndax dafa maanaam woon ni koo xam ne dafa nekk ci ab teen ñu sànni ko ab bunt te bunt boobu mooy zikru laay wala jot waaw moo a teg ab bunt ndax bu ci amul xolu lënd amul xolu lënd moom mu nekk waaw ah, te mooy pax moom mooy bakkan ak bànneex àddina seytaane hmm. ñu àndaat ak moom nekkat ci biir àddina bu lënd boo xam ne daa fekk teel ak bànneex nga xam ne si kaw lay dama lay jàpp jëm jëm ci lëndëm bu tàkk boobu ndax loolu moom loolu sëriñ bi ñu koy jàngal nañu ruub maanaam doomu aadama day yor waaye bu ne ruub boo xam ne tey waaye démb démb waaw ruub boobu Pukul mulai sekolah Ni somi yang bak ni boleh dapat sekolah Ada kamu yang sekolah yang bijak Yang dia buat yang pun dia Dan mulai jamu yang tak sabar ya Sekolah yang mulai jamu yang tak sabar ya Mungkin cik dapat dua. Tidak ah, Ini sering dikunci dulu Tidak Tidak Ada yang terdapat terbatak xel doomu aadama li koy tasaare ak li koy dajale dafa bari te muy xeetu xeetu bi ak mbir xeetu teeg yooyu ak mbir yooyu doomu aadama lenn rek moo mën a jublu muy mu jàpp mooy isi wu la dëgg la dëgg la day tax xolam dajaloo xelam dajaloo ubboon mu def te su boobu jotee su boobaa dina mën a delluwaat pour dugg yoon xam naa kàddu yi dama la dugg waaw waaye ñu koy yëngu rek isi wu laay am li am solo moo tax ñu doon waaw ومنكم الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض suuf si dafa maanaam nit téer jàngal sa borom nga xam ne lépp loo xool rek war nga koy jàngal sa borom ba ci booy nelaw sax war nga fàttaliku sa borom waaw ndax fàttaliku suñu borom wóorul wóorul xel ñu ci def ci jaar rek jaar ci xol waaye wóor na ko taxawul ak juróom ak benn ci juróom loolu moo taxawul dama la dund waaye bu fàtte suñu borom da ngay dund te doomu aadama dafa war a dund ndax bu dundul day daal di dee li teel na suñu borom lool doomu aadama di ko fàtte ndax fàtte ko boobu moom rek lay jëriñ waaye jëriñu suñu borom lool ndax suñu borom kat amul ci doomu aadama benn intérêt waaye doomu aadama moo am intérêt suñu borom jaamu gi nga jaamu suñu borom doomu aadama jaamu gi nga jaamu suñu borom moom moo cee jëriñ waaye yóbbu suñu borom daal ñàkk ngay jaamu di wàññi suñu borom dara ndax jaamu suñu borom mooy digal mooy lekk naan te boo ko defee yow loolu loolu la ñu sa xel léegi doy sa xalaat sa kon nag ñu ngi koy fàttaliku baax a baax a baax dina gën a teewaat ci ndigal yu baax waaw tey gën a jàppaat ci suñu la dégg si pour nga dégg lu am solo loo xam ne bu ca jàppale dana dund waaye ku ko sàggal nag dana dégg

لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده